seetaan seen Senclic ñu ngi nuyu ñépp di leen ziar di leen ndokkeel ci weer wi di ñaan ci yàlla subhaanahu wa taala liñ ci jot woor yàlla nañu ko yàlla nangul yàlla nañu yàlla may li ci des ñu mottali ko jàmm ñu ñaan yàlla subhaanahu wa lii nga xam ne mooy feebar bu ñu yàlla teg ñu ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu ko teg mu teggil ñu ko ci yërmandeem waaye ci mbaaxam yàlla nañu ko yàlla teggil ñu ñaanit ñi nga xam ne ñoom la yàlla def ñu jiitu yàlla na yàlla yërëm leen ñi nga xam ne ñoo ci tawat yàlla na yàlla saafara leen waaye ñi nga xam ne jotuñu ko yàlla bu ñu ko jot yàlla na ko yàlla yemale fii ci àddina si yëpp yàlla na ko fi yàlla jële fa tabaarakallaahu mu mel ni tey sunu émission bii tey dañ ko bugg a jagleel ci ay jéem a ay njuumte ndax yàlla rekk moo dul juum ndaxit boroom xam-xam it loo am am xam-xam rekk bés ñëw na nga juum rawatina ci masalam fiq ndax fiq moom ay texte la ci madahibul arbaa yëpp ñi nga xam ne mooy imaam Malik mooy sunu ngir biñ ci gën a xam imaam Shafii Ahmad ibnu Ambal ak Abu Hanifata bu ko defee ñu war a ñëw nag pour jéem a tontu walla jéema gàgganti sunu benn mbokk bu def émission ci benn télévision ñu am laaj yu ñu ko laaj mu am yum ci tontu yoo xam ne am na ay njuumte bu ko defee yooyu moom lañuy ñuy jéem a indi waaye defuñ ko lenn lu dul rekk jéema a laaye biir ndax yàlla rekk alkamaalu lillah yàlla rekk moom mat ndaxit loolu bu njuumte amuloon ñun duñu mën a defar sunu julli ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li tax ñu mën a julli juum rectifier ko yàlla moo juumloo Seydina Muhammad ci biir julli jàng xamal ko nan lañ ko war a rectifier kon loolu moo tax mbokk mi dafa am bokk ci laaj yiñ ko laaj. Euh, euh, ci ban âge la ñu mën a la euh, góor mënee jiite. waaw Cheikh xam nga lislaam moom diina la ja nga xamante ni lépp ay texte la yoo xamante dañ ko bind noir sur blanc comme ni ñu koy waxee mhm. soit mu bàyyeekoo si alquranul karim bi ñu miin wala si waxu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mhm. wala si ijma maanaam li nga xamante ne fuqaha borom xam-xam yi euh, waxtaan nañ ba tënk ne lii mën na nekk si charia al islamia wala qiyaas qiyaas boo ko déggee maanaam ñu ne par exemple lii amoon na si jamono nangam léegi xew-xew bi nan lañ koy atte ñu ne kon nañu dem ressource wu si foofu wala inspiré wu si foofu ngir ñëw mën a indi atte si li nga xam moom moo di si xew-xewi jamono yi nga xamante ni kër yi dafa ndaw daf ci am ay famille yu ndaw par exemple ki laajte lii mhm. moom la yaayam mhm. doomam bu jigéen ak mhm. doomam bu góor bu am 15 ans et que gi tàmbalee ba tey heureusement jàngal na ko alxuraan et tout ça doom bi am 15 ans moo koy jiite mais daf ci xaw a am ay doute waaw d'abord sorti euh, imam moom d'abord il faut day nekk musulman charte yi laa lay indi si ñaari minute rek si ñaari seconde mhm. ba pare mu nekk ka nga xamante ni ku xam diine la ba pare doon góor mën a jiite ay góor xale du jiite waaw maa ngi ñëw <laughs> ba pare doon góor mën a jiite ay góor ba pare laab Mamadou Ndiaye mi yenn saa yi mu ne ma sawaay ñu julli bokk da ko déet bàyyi ma jóg ba pare <laughs> nga taxaw sama ginnaaw. yaa ngi dégg sart yi mooy mu nekk jullit d'abord. nekk ka nga xamante ni kuy xam attey lislaam la. nekk ka nga xamante ni ku laap la. nekk ka nga xamante ni ku ànd ak xelam la ba pare xàmmee naka la ñuy réparer julli gi nga xamante ni dafa jamaj wala borom. Ah. julli gi dafa juum. donc léegi nag boo ñëwee ci ki nga xamante ni moom moo di euh, euh, jiite xale. Ah. boo demee si ngir gii nga xamante moom moo di nguri imam Malik. Hmm. nga xam ne Sénégal si lañ gën a tënk Afrique de ak yenn euh, dëkk yi da wax ne bu fekkente ne julli farata la hmm. xale ko mais bu dee naafi la mën na ko. d'accord parce que lii di farata du naafi naafila. xam nga julli la boo si juumee amul réparé. Ah. julli la soxlaawul euh, ñaari sujjóot moo xam qabla la wala baada la contrairement ak julli bi nga xam ne moo di julli farata mais borom xam-xam yi am nañu ne âge bi nga xamante moom moo gën a minime hmm. ngir xale mën a jiite ay mag mooy li nga xamante moom moo di fukki at ak ñaar muy douze ans muy douze ans mais am na ñu wax mooy que loolu mais bi gën a war mooy 12 ans waaye ba pare du nekk julli farata. bu leen di jiite julli naafile lay doon lu mel ni si koor. nga xamante ni dañuy julli farata ba pare xale bi peut-être nekk na daara ja mokkal na al alquran mm-hmm. baatam neex na dina sàmmunte ak li nga xam moom moo di tartil muy li nga xamante ni moom mooy règle. Euh, grammatical yi nga xam ne moom la ñuy jànge alquran ak conjugaison yeeg ñoom seen apprentissage la sax pour xale bi euh, bu dee julli farata bi ci journée bi yaa ko julli bu nag ba euh, ba ba julli gee ba def shafaak huit la jotee xale bi mën na jiite mu nekk genre mu nekk ni bu bu màggee rek fa tabarakallah allah day mën a sama doom ja si jaar dama lay foowee day a enchaîner yàlla na la fal ba mu jël ak ñaan leen anhu te may ma xaalis borom na am mu am jërëjëf mu ngi noonu donc fukki at ak ñaar la ñu wax bu dee nguru imam malik nee na mën na nekk si naafi la mais mënul nekk ci farata comme nag Sénégal ci nguuru imam Malik la ñu tënk wala ñi ci ëpp kon dañuy wéyee li nga xamante moom moo di imam Malik mooy mooy li mu wax beneen bi mooy jigéen bu fekkente ne kër goo xamante ni xëy na boroom kër gi newu fi tukki na dem na bitim réew wala dafa voyagé wala liggéeyam tënk na ko julli jot bu fekkente ne ay jigéen rek ñoo fa nekk ku jigéen mën na jiite ay jigéen rek ci biir kër gi mais ci digg bi lay nekk hmm. ñi ci des aligné wu ak moom ah taxaw ci kanam góor di jiite déedéet musuma ko bi lay nekk jigéen ñi aligné comme moom ni sàppe benn sàppe rek léegi mu leen di jiite mais buy jàng alquran si suuf la koy jàng ah, buy wax allahu akbar mu wax ba nga xamante ni ñoom dinañ si dégg ñu mën a ànd ak moom donc parce que jigéen même buy julli farata tamit day yelu ndax dañuy wax ne almaratu kulluha awra maa adal waji wal kafayn hmm. jigéen léppam awra ba mu des xar kanamam ak ñaari tënk loxoom hmm. donc loolu moom tax ñu ne baatu jigéen buy jàng alquran légal rek warul jëm kaw mais bu fekkente ne day jàngale hmm. a a a a mën a Euh, audible nit ñi mën ko dégg ndax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fekkoon na suñu yaay Aïcha radiyallahu anha soxnaam su baax si mhm. saxaaba yi nekk fi di ay kàngam ay érudit ay xam-xam mhm. mu ne leen xudu nisfa diinikum an hadihi alxumayra mhm. bu ngeen bëggee xam seen diine wala seen genn wallu diine wala li si ëpp jàngee leen ko si as boroom kaala su xonq si wala as ku xonq si toog di suñu yaay Aïcha radiyallahu anha donc si loolu la ñu sukkandiku ne jigéen mën na waaraate jigéen man na waxtaane diine jigéen mën na jàngale li nga xam moo di diinul islam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la waxoon na saxaaba yi radiallahu anhum ñuy laaj suñu ay Aïcha radiallahu anha kon su demul woon noonu mhm. kon du yonent sallallahu alayhi wa du ko jàngale mhm. te koo laaj bëgg nga mu wax la te bu la waxee dalay wax si kaw ngir nga mën a dégg voilà donc euh, euh, moom bi muy tontu mu ne bi muy tontu mu ne bala muy commencé dafay indi charte imam ci biir sarti yi lim na ci laab laab nag nekkul sart ci ci imaama waaye sart la pour julli gi mën a wér bokkul ci sarti imaam waaye ci sarti julli gi la bokk te itamit bu ñuy waxit it walla bu ñuy tontu dañuy joxe référence yi ndax moom bi muy tontu dafa wax ne ci madhab imam Malik mu mel ni téere bii nga xam ne moom laa yore téere bi mu ngi tuddul fiqul yi fii saw thawbihil jadid noonu la téere bi tuddu boo demee ci ahkaamul imaama te moom téere bi mooy premier tome bi boo demee ci page deux cent soixante neuf bi muy indi charte imaam dafa wax ne sarte yi war a tax imaama gi wér bi ci jiitu mooy lislaam boobu moom wax na ko dëgg la boobu il faut nit ki nekk jullit pour mën a jiite ñaareel bi mooy fokk mu nekk ku góor ku góor jigéen ak jiiteem du wér ab jiite jigéen du wér moo tax mu ne kon sixatul imaama il faut mu nekk jullit waaye it il faut mu nekk góor fala tasixu imaamatul untha nee na du wér ab jiit jigéen di jiite laa fil faridati wala fi naafilati nee na du jiite ci naafila ci farata waaye du jiite it ci naafila laa li rijaali wala li nisaa'i nee na du jiite ay góor du jiite ay jigéen ci mazhab imam malik laa wax wa misluha al xunsal mushkil naka noonu it ngaana ñii ñëpp duñu ñu jiite du jiite ay góor naka noonu it jiite ay jigéen bokk na ci sarte imam mu nekk ku am xel bu ñu ne ku am xel nag ku dof génni mun a fala tasihu imamatul majnuni mutlaqan walaw kaana yafiiqu ahyaanan maanaam ab ku gën maanaam koo xam ni dafa dof du jiite donte léeg-léeg ndof gi jën ci moom tuuti kooku dañu wax ni tax du du tax mu jiite bokk na ci albuluuxu mu majeur fala tasi imaamatu sabi li rijaali awi nisaa te foofu it wax na dëgg mooy góor euh, xale bu mënu mën na jiite ay góor waaye nag dafa am ay condition foofu am na ci werante bu ci boroom xam-xam yi am ndax xale mën na jiite bu dee naafila la waaw foofu dañu wax ne bu nekkee dafa war a jiite naafila sax day nekk koo xam ne tamyiz kooku danaa ci am benn leeral bu ma indi léegi ci beneen téere kon al mooy mu majeur fala tasihu imamatul sabi li rijali aw maanaam fokk mu majeur waaye nag fil fara faraidi du leen mën a jiite ci farata waaye bu dee naafila lala mën na leen a jiite foofu tamit am na lu ci borom xam-xam yi wax beneen bi ci des mooy fokk it al ilmu bi ma la tasihu salaatu illa bihi kii jiite it fokk mu nekk woo xam ne dafay xam loo xam ne mooy tax julli gi moom loo xam ne fokk mu xam ko pour julli gi wér te mooy fokk mu mën a jàng fatiha ak saar ci alquran fokk mu xam àttey yi nga xam ne mooy aju ci wàllu julli ci bu fekkee ne danga juum ci julli gi nan nga koy réparer su fekkee ne danga yokk wala danga wàññi nan lañ koy defare bokk na ci sart yi imam pour mu nekk imam mooy àll adala te liñ ci jublu mooy mu nekk koo xam ni Euh, li ñu xam ci moom mu bañ a nekk ko kàccoor nit nag te dañu wax ne al adala fii wal muraadu biha huna adamu lfisqi al mutaalliq bilsalaati falfaasiqu fisqan mutaalliqan bilsalaati kaman yaqsudu bi imamati al kibru fala laa tasihu imamatuhu maanaam koo xam ne maandu gi bii liñ ci jublu mooy koo xam ni julli gi li ci aju dafay mel ni lu yàq julli gi te mooy koo xam ni dafa jul daay jiite nit ñi waaye daf ci boole alkibru ka man yaqsudu bi imamati alkibru fala taswi imamatuhu loolu ci mazhab imam malik loolu wax maanaam koo xam ni mu ngi jiite nit ñi waaye rëy rëy kibru la ci jublu su boobaa dañuy wax ni kooku jiiteem du wér ci mazhab imam maliki beneen bi ci des mooy al qudratu ala tawfiyatil arkaan te mooy nga am compétence mën a indi arkaan yi maanaam mën a ruku mën a sujud mën a jóg yooyu déplacement yooyu nga def ci julli gi fokk mu man ko yii am na bu ci yokk nag ci lu tax nit mën a nekk ilimaan bu fekkee ne jumaa la su boobaa fokk ilimaan bi nekk ku fa dëkk fokk imaam bi nekk ku fa dëkk kon juróom-benn yi wala juróom-ñett yi moom la ci mazhab imam malik moom la wax ni mooy yi nga xam ni mooy tax julli eh, nu mu tuddee julli mën a imam bi mu nekk mën a mën a wér waaye li ma doon wax léegi boo ñëwee ci li mu wax ci xale pour mu jiite ay nit téere bi mu ngi tudd al fiqul waadex fiqul waadex ki ko taalif mooy docteur Mouhamad Bikra Ismail moom dafa wax ni moom bi muy indi sarti imaama dafa wax ni an yakuna mustawfiyan li suruutu sixati salaati bi wujuhin am te mooy mu nekk koo xam ne dana mën a indi sart yi nga xam ne mooy tax julli gi wér yëpp te yooyu mooy lislaam ca la bokk am xel ca la bokk te it wax nañ ko ci gannaaw te mooy il faut mu nekk jullit il faut mu nekk ko am xel waaw yooyu ba amee ba ca topp mooy an yakuna zakaran mu nekk góor nag fala tasihu imaamatul unsa li rajuli bil ijma góor jigéen dañ wax ne mun la jul jiite ay bil ijma ay ay ay góor ama imaamatuha li lil marati li imraatin misluha waaye nag bu fekkee dafay jiite ay jigéen ni moom ah fa tajuusu inda kathirin min al bu fekkee ne wax na ko léegi moom bi muy tontu loolu nee na mën na jiite jigéen waaye loolu bi mu waxee ne ci mazhab malik mazhab malik waxul loolu dana ñëw léegi ci kanam mu ne kon mën na jiite ay jigéen ci lu gën a bari ci fuqaha yu ci li nga xam ne wax nanu ko ñetteel bi ci li mu indi moom bikr muhammad ismail mu ne an yakuna baalixan mu nekk ku majhur moom dafa wax ne fala tajuusu imaamatu sabiyi li rijaali wala nisaai mutlaqan laa fi lfardi wala fi nnafli inda akthari alfuqaha li annahu xayra mukallafin wa salaatuhu taqacu naflan dafa wax ni il faut mu nekk ku majeur kon xale pour mu jiitey nit il faut que mu nekk ku majeur mu ne falaa tajuusu imaamatu sabiyi mu ne du dëggan xale muy jiiti ay góor waaye du dagan muy jiite ay jigéen mut mutlaqan nag la wax laa fil fardi du leen jiite ci farata wala fi nafli waaye du leen jiite it ci ci naafila inda aksari fuqaha ci li gën a bëri ci borom xam-xam yi mu ne ndax moom nekkagul mukallaf te mukallaf mooy koo xam ni dañ koo togg jëf te koo xam ne mon majeur na mu ne wa yajuuzu wa jawaza baaduhum imamatuhu mu ma mumayisan xaari an lil quran xaari an lil quran walaysa hunaka man huwa awla minu bil imamati mu ne mën na nag am nañu ko daganal pour mu jiite bu fekkee ne xale ku ku ràññee la mën a jàng alquran te ba muy ba ñu koy jiite dafa nekk koo xam ni amul ku gën a yell imaama ba ci moom bu fekkee ne am nañu ko ko gën a yelloo pour jiite su booba moom du leen jiite kon lii dañ ko doon indi ci rekk ci jëm koo leeralal nit ñi pour nit ñi xam ni bu fekkee ci madhab imam malik xale mën nañ bu fekkee ne dafa yegg ci san sinnul buluux mën na jiite la waaye du mën a jiite nag julli farata waaye boo ñëwee ci téere bi moom dala wax ni moom mënta jiite naafila mënta jiite farata ci li ëpp ci borom xam-xam yi li ñu wax kon lii dañ ko doon leeral rek pour nit ñi gën a xam ni eh, fiqul maliki boo ko waxee il faut que rek mu am yum ci leeral pour nit ñi gën a comprendre beneen bi ci des ci même question bi téere bi mu ngi tudd al bidaaya wa nihaaya bi al bidaayatul mujtahid wa nihaayatul muqtasid ibnu rushdi moo ko taalif ci wàllu jiite ci jigéen nee na jigéen mën na jiite ay jigéen ni moom ci mazhab maliki déedéet déedéet jigéen mënta jiite ay jigéen ci mazhab imam malik ba ñëwee ci téere bi ci page deux cent bi mu ñëwee ci ixtilaaful al ixtilaaf fi imamatil mar'a maanaam bi mu ñëwee ci wuute gi am ci jigéen mën na jiite wala mënta jiite ci masala bu ra ñeenteel bi dafa wax ne ixtalafoo fi imaamatil marati maanaam wuute nañ ci jigéen war a jiite fal jumhur ñi gën a bëri bokk ala annahu laa yajuusu an ta'uma rijaal mu ne liñ gën a jumhur wax moom jigéen moom du jiite ay góor loolu moom ñëpp ci d'accord waxtalafoo waaye wuute nañu ci fi imaamatiha nisaa bu fekkee ne nag wuute gi mu ne mooy ci bu fekkee ne ay jigéen lañu fa ajaaza dalik ashafii kon imam shafii moom ci boppam moo daganal ne jigéen mën na jiite ay jigéen ni moom wa manaa dalika malik imam malik moom da ko tere kon loolu ci téere boobu loolu lañ ci doon rectifier rek ci mbokk mi li mu indi question deuxième question bi hmm. euh, kii dafay laaj ci allo oustaz ni hmm. est-ce que mën nga def yaramu neen di jàpp ñu bëri dañu koy def. Mhm. boo sangoo ba nuppi rek. Mhm. waaw waaw. waaw xam nga tey ji par exemple. Ah. loolu lu lu mën a nekk la parce que. boo xoolee sangu garaaw la nag boo xoolee sangu farata. Hmm. par exemple muy sangu set comme ni ñu koy waxee nit ki bu koy def lu muy def. xam nga day simmeeku ah. dugg si duus bi jonjoo sangoo ak saaboog njàmpe ba pare ah. daal dee sangu sangu farata mhm. boo sangoo sangu farata am na ba nga xamante ni day ànd ak njàpp bu la neexee bu dee da nga war a jigéen bu gisoon baax wala góor gu nekkoon ak soxnaam pare war a sangu bëgg a julli ji mhm. mën na boole si sangu farata bi njàpp bu paree rek Euh, sol ay yéreem wala serbetam fomp dem julli ji donc bu fekkente ne nag da nga euh, bëgg am envie sangu sangu set te boo boole boo si njàpp bu la neexee boo sangoo set ba pare boo paree nga jàppe noonu boo paree nga génn hmm. ala kulli xaal li mu bëgg a wax foofu mooy tey sangu set bi nga xamante day ànd ak njàpp ki koy def du yaakaar naa ne du sol yére te bu paree may nañ ko mu fomp sol ay yéreem dem julli ji kon nit mën na jàpp sans pour autant ka mu sol yére Euh, te boobaa jàppam day nekk la nga xamante ni lu baax la. Mhm. lu lislaam du nangu la maa daama deful si diggante ba luy toj njàppam Baye Cheikh. voilà beneen question ba tey ci wàllu mhm. njàpp euh, te man loolu itam daf may trotter souvent la tête am na ku mhm. laajte ni. Euh, sangu farata comme par exemple bu sobee nekkee sa yaram nga war a sangu farata. mook sangu normal bi ban moo ciy jiitu dangay ngay sangu normal ak saabook machin baal leen ma safur laa <laughs> tàmm wax yu yu waxi waxi dof rek da ngay sangu normalement doog sangu farata wala da ngay sangu farata doog sangu doog a normal bi gën. mooy nga sangu normal jël saabu ak njàmp bomb ba set wàññi sobe si bu baax ba mu deñ sa yaram ah. nga daal dee def li nga xam ne moo di sangu farata ah. parce que tey jii nii boo sangoo farata pare ah. bëgg sanguwaat ak njàmpeek saabu sa tënk bii bu laalee sa awra rek sangu ma day yàqu ba pare mun naa ko sa yaram waaw waaw bu ko laalee rek xam nga poom bi du li mooy poom xam nga poom bi bu laalee awra góor rek toj na njàppam toj na eh léegi nag bu fekkente ne yow euh, da nga sangu ba pare farata ba pare bëgg jël njàmpe ak saabu bëgg a bombaat sa yaram yëpp sa loxo bu ko laalee njàpp mi day day tojaat sangu mi dootul valable donc boo sangoo farata ba pare rawaleel sa loxo voilà voilà léegi nag pour pour pour loolu bañ la arrivé da ngay sangu ak njàmpe ak saabu ba set wecc hmm. soo paree nga daal dee sangu farata nga xam ne si saabook njàmpe boobu nga raggu ba set sobe si yëpp daanaka dañ na yow boo paree da ngay sangu farata rek ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu ko jàngal hmm. ngir boo julli ji bu fekkee da bëgg julli boo bëggee jàng alquran nga mën a jàng alquran. bàyyi d'accord eh, mbokk mi wax na ci wàllu sangu set waaye sangu set biñ ko laajee moom dafa wax ni bu fekkee ne dangay sangu farata ak sangu bu dul farata ñaar yooyu ban nga ci war a jiital moom mu wax ni ndax kii kii sangu farata buy sangu dafay desera mu neen waaw bu boobaa nee na na njëkk a sangu ak saabu bu sangook saabu boo sobe si dëñ te loolu foofu liñ ci rectifier mooy ndox ak saabu mënta dindi sobe mënta dindi sobe tilim tilim la mën a dindi waaye mënta dindi sobe loolu il faut ñu leeral ko ndax ki nga xam ne mooy sangu mu ne ndax bu fekkee ne dafa sangu ak saabu euh, bu fekkee ne nee na dafa sangu ba pare ci biir sangu bi euh, loxoom laal awraam sangu bi dafa yàqu loolu yi tamit njuumte la loolu njuumte la sangu li nga xam ne moo mën a yàq sangu farata mooy li nga xam ne moo koy waral rekk nit ki boo sangoo ndax sa il faut foofu ñu leeral fii xeet yan xeetu sangu moo am ci mazhab Maalik yi dañu wax ne li ñuy tuddee sangu farata ci wàllu sangu dafa am sangu boo xam ne waajib la am sangu boo xam ne sunna la am boo xam ne dañ ko sopp ci sangu am na boo xam ne farata la waajib la am na boo xam ne sunna la am na boo xam ne dañu ko sopp alwaajibu maanaam sangu boo xam ne fa dafa war ci nit ki mu def ko feek defoo ko du la wàcc mu ne ida kaana min al naja min al janabati aw il xaydi aw nifaas benn mu nekk dafa am janaaba maanaam góor mu ànd ak soxnaam soxna mu ànd ak bërëm këram wala bu dee jigéen mu gis réglam wala mu am doom xool nga góor bu ànd ak soxnaam jigéen ànd ak bërëm këram wala jigéen mu gis reglam bu régle bi jeex wala jigéen am doom xool nga deret jooju bu jeexee rek li mu war a def mooy dafa war a dem sangu ji sangu boobu moom feek defu ko du ko wàcc feek defu ko du ko wàcc kon boobu mooy sangu bi nga xam ne dafa war boobu farata la léegi nag boo koy def ni ñuy sangoo farata boo ko sangoo ba pare moom dafa ni danga war a jiital sangu bi nga xam ne mooy sangu normal mu ne ndax boo ko defee booy boo ko deful boo sangoo demee booy sangu farata bi sa loxo booy boo laalee sa awra sangu bi dafa yàq foofu dafa deme naa ne dafa jaawale foofu njàpp bi lay yàq waaye du yàq sangu bi te nag bu fekkee ne ndax ci mazhab maliki la bu dee jigéen la sax laal pëm bi mu laay maanaam tënk li bu fekkee ne jigéen la bu laalee awram du tax njàppam yàqu ci mazhab maliki ñu fokk baaramam dugg ci sexam pour njàppam yàqu waaye nag bu dee ne na góor la bu laalee koo awra bi rek wala ca côté baaram yi laal awraam su boobaa njàpp moomu dafa yàqu waaye li nga xam ne sangu bi du yàqu sangu xam nga lan moo koy yàqu mooy yow mi sangu nga àndaat ak sa soxna jigéen bi sangu nga gisaat sa mbaax jigéen bi sangu am ndoom yooyu mooy tax ñu ne kon su boobaa loolu mooy yàq sangu am na benn sew-sew ci boo am ci wàllu sangu te boobu ci sangu sunna lay doon ñaareelu sangu yi nga xam ne ci sangu yi la bokk mooy sangu sunna lu mel ni sangu jumaa lu mel ni euh, sangu julli eed mooy tabaski wala korité wala kii armaat pour aj wala umra walla ki nga xam ni e, dafa sangoon wala sangoon néew mu ne xaslul mayti am na ñu wax ne sax bu dee boobu waajib la <coughs> kon li ma bëgg a wax rek mooy sunnay ci sangu mooy sangu jumaa foofu nag lañ wax ne ki nga xam ne moo sangu jumaa foofu fuqaha yi wax ne kii sangu jumaa moom liñ koy tere mooy bu sangoo na fexe ba sangu boobu mu bañ fi lekk ci diggante bi ñu ne su boobaa bu sang bu sangoo ba pare lekk ci diggante bi boobu la wax ne sangu boobu moom mu yàqu sangu bi sangu boobu moo tax dañu wax ne bu sango ba pare rek na dem julli ji waaye mu bañ fa ba toog di lekk wala muy def leneen kon loolu mooy sangu boo xam ne ci sunna la bokk am boo xam ne euh, mustahab ba dañ koo sopp mu mel ni ka ka ka ida ida kaana li tawaaf maanaam koo xam ne dafay sangu pour def tawaaf wala mu sangu pour saayi na safa wan wa wala mu sangu pour dem taxaw arafat wala mu sangu pour dem musdalifa wala al xuslu min damil istihaada ci sangu pour deretu jorgel yooyu yëpp dañ ko sob wa ixtilsaalun min xaslil jiiti wala koo xam ni dafa sangu woon dafa sangoon nit ku génne àddina ba pare sanguwaat ba muy sangu moom kooku dañ koo sopp wa inda duxulil fil islaam ak koy dugg ci lislaam sopp nañ ko illaa lil junubi awil xaadi fa waajibun lu dul koo xam ne bi muy dugg ci ci diine ji dafa fekk mu am mbërëg wala mu nekk koo xam ne dafa am janaaba su boobaa dana danay jaadu mu mu sangu bala muy e, dugg ci diine ji ndax duggee ci diine bi julli da koy war te bala koy julli war dafay fekk mu am laab ak ya ca aju kon bu ko defee yooyu moom lañ doon wax rek ci wàllu li mu wax ci wàllu laab ci ci sangu kon sangu li ko yàq du laal sa awra mënta yàq sangu farata sangu farata li ko yàq mooy li ko waraloon rek kon nag loolu moom lañ doon leeral ci question boobu nga xam ne mbokk mi laajoon nañ ko ko bi ñuy mujjee nag mooy bi mu wax ci wàllu euh, julli xam nga la ci wàllu julli dafa wax ne ndax julli bu fekkee ne naafi la la xale mën na ci jiite nit ñi waaw waaye mënta jiite nit ñi ci julli farata mu ne ndax julli farata dafay aaju nit ki mën a xam nan la ñuy defaree julli nit ki mën a xam bu julli gi bu yokkee nan la koy defare ak bu wàññee nan la koy defare mu ne ndax bu dee ne julli farata la dafay am sujoodu wi te mooy da nga boo juumee yokk wala nga wàññi mu ne waaye bu fekkee la loolu amul loolu ci mazhab Malik waaye dama ni ci mazhab imam Malik la waxe looloo tax ñu ñu indi leeral foofu xool nga boo demee ci Laxdari yu téere bi ma yore nii ci laxdar yu dañ koy charha mooy charhun wa taxlilun li muxtasir al axdari fi l ibadat maanaam al axdar yu moom lañu ñu charha def ko taxlil moom bi mu ñëwee pour wax ni moom dafa wax ni julli la boo ci juume amul sax sahwi amul baada amul xab la waaye bu dee julli farata am na xab la am na baada ci madhab yi loolu nag <coughs> waroon na ak li nga xam ni moom la madhab maliki wax boo demee ci téere lax laxdari bii ma lay wax dafa wax ni wa saxwu fi naafilati ka saxwi fi faridati maanaam dafa wax ne ki juum ci jul ci julli naafi la ci farat julli farata mu ne mu ngi mel maanaam ki juum ci naafi la mu ngi mel ni juum ci farata lu dul ci juróom benn place kon ki nga xam ne mooy julli naafi la bu juumee moo ak ki juum ci julli farata ñoo yem lu ci juróom benni palaas lu dul fi sitti masail ci juróom benni masala te mooy alfaatixa wa suura wa sirru wal jahru wa ziyaadatu atin wa nisyaanu baadul arkaan intaala mu ne kon fatiha saar wala ngay war a yelu biiral yokku rakka wala fàtte benn ponk bu fekkee ne yàgg na mu ne nag fa man nasiya alfatiha fi naafilati wa tadakkara baada rukuuci tamaada wa sajada qabla salaami bi xilaafi faridati maanaam ki nga xam ne mooy julli naafila maanaam maa ngi julli naafila bi may julli naafila ma fàtte jàng fatiha bi ma koy laata fàttaliku bi ma rukkooee ba pare laa fàttaliku ne man jànguma faatiha su boobaa mu ne damay tamaada damay continuer dangay continuer julli gi waaye boo paree da nga koy sujootal xabla salaam ci naafila gi mais bu fekkee ne julli farata la fàtte nga faatiha ci julli farata bi rakk boobu danga koy feeg bu rakk bi fasoogul bu rakk bi fasogul waaye bu fekkee ne rakk après rakka bi nga ko fàttaliku rakka boobu da koy élimine nga indi beneen rakka beneen rakka place am loolu la euh, borom xam-xam yi jàngale ci wàllu sujjóot boobu kon foofu yi tamit euh, am nañ jumte bu ci am moo tax dañu wax ni bu fekkee ne julli naafi la koo xam ne dafa xar xarmaal di julli naafi la summa saha an il qiraati alfatiha fi rakaati l maanaam danga nga juum ci bi nga julli naafila nga juum ci jàng faatiha ci rakk bu njëkk bi walam yatadakkar waaye fàttalikuwuloo ko illa baada rukuu lu dul bi nga demee ba rukuu nga fàttaliku ne man jànguma faatiha ci sama rukuu bi ci naafila ci rakk bu njëkk bi fa innahu kooku lañu wax ni yatamaada ala salaatihi ni na dafay continuer ci jullim ga bu boobaa nag daf koy faye wa zalika a naqsu alladi wa yajbiru zalika naqs alladi xasala minhu min tarkihi lil qiraati al mu ne la muy defaree bàyyi gi mu bàyyi fatiha lim koy defare mooy sujuud daf koy sujuutal qabla salaam والحاصل أنه لو حصل منه ذلك السهو نفسه في في الفريضة لم يكن الحكم كما كان في الصلاة النافلة فإنه إذا وقع منه سهو بترك قراءة الفاتحة لم يتذكر إلا في حالة الركوع فإنه يتمادى على صلاته ويأتي بركعة أخرى بعد إلقاء ركعة التي دخل فيها الخلل بسبب ترك قراءة الفاتحة fiiha summa yasjudu sujudu sahwi baada salaami in kaana rakaa al mulqa an an awalayni dafa wax ne su fekkee ne danga nga julli farata da nga doon julli naafila ci sa rakka bu njëkk bi nga fàtte jàng fatiha dama dem ba ci après bi nga rukkooyee nga doo ko yëg mu ne continuel ci julli gi comme naafila la continuel boo demee ba sël ba pare nag bala ngay sëlmal ngay sujood sujoodu qabla salaam waaye nag bu fekkee ne loolu daf la dab mais bi mu lay dab ci julli farata la dabe su boobaa dañuy wax ne su boobaa dangay li ngay def fi salaatil faridati te dem atte boobu du bokk ak atte bi mu amoon ci atte boobu bu fekkee da nga bari ko bàyyi faatiha bi ci ci rakka bu njëkk bi boo ko fàttaliku fekk nga nekk ci ruku après ruku bi nga ko fàttaliku fa inoo kooku yatamaada ala salaat yi day continuer ci julli gi wa yaati bi rakaatin uxra mu indi beneen rakaa gannaaw bi mu ilxaa maanaam gannaaw bi mu sànnee e, rakk bu njëkk boobu li nga xam ne ci la jànguloon fatiha bu boobaa nag mu bàyyi loolu indi beneen fa beneen saa beneen rakka ci palaasam summa yasjudu mu daldi sujud sax wi waaye nag baada salaam lay sujud foofu baada salaam lay sujud waaye dañ koy jàppee ne dafa mel ni ku yokk kon lii daal moom lañ doon indi rek ci jéem ko leeral ndax it fiq euh, boo koy wax sur le fiq al ndax lépp lu aju ci sujudu sahwi ni ñu koy fayee bu fekkee ne ci fiq maliki la ñu ne noonu nga koy fayee bu fekkee ne danga nga juum ci naafi la kon naafi la boo ci juumee ci mazhab imam malik dañu wax ni dangay koy sujootal sujuudu xabla salaam wala baada salaam mu ngi aju ca na nga juumee kon yii daa ay leeralal lan woon rek yoo xam ni ci juróom benn masala lañ wax te mooy ku mel ni fatiha walla saar walla yelu walla biral walla nga yokku rakaa yooyu noonu kon yii daal lañ doon indi rek pour wax la kon juróom benn masala yi rek lan lañ nga xam ni ci lañuy ñu wuute ndax bu dee fatiha wala saar saar bu dee saar ci julli sunna la naka noonu yelu walla biral te yii yëpp ci madhab imam malik kon lii daal lañ doon indi rek pour leeral ko ndax bu ko defee nag ñu xam ne nag ku dul juum yàlla bind ko waaye dafay jaadu nag man bu ma juumee ci masala te may def benn waxtaan la gën mooy ma fexe ba dellu siwaat ca fa ma defee woon njuumte bi ndax su boobaa ca ngay gën a am sax eh, nit ñi ci la ñuy gën a xam ne ndax nag ku ku dul bi jiir bu juum yàlla bind ko kom ku dul juum yàlla bind ko lii nag li tax ñu ñu àddu ci rek mooy comme dafa tudd ba cité imam Malik kon il fallait ñu leeral li imam Malik wax ak lim waxul kon yi daal moo doon tontu yi e, yal nañu yàlla defal tawfiq di gërëm ña caméraman yi nga xam ne ñoom la ñu àndal ci jataay bi muy